yaakaar naa comme comme Sénégalais yëpp euh, te am naa yaakaar ne am naa yërmande waxuma la sax d' abord sama njaboot lay commencé yaakaar naa dina du ma dem ba Italie dafa jël jàngoro bu toll ne bii am ñëw xëpp ko sama njaboot wala bët ci biir Sénégal loolu ma yéene jooju waaw loolu moom aw ma yéene jooju. bu bu comme le premier Modou Modou wala le premier Sénégalais bi dugal euh, jàngoro ci biir réew mi euh, casquette boobu. koy sole non casquette boobu dafa doon casquette bu bu métti ba indil émission xam eh, ko waxee eh, émotion bu nga xam ne wax dëgg xaw na ma euh, jàpp lu pendant trois presque quatre jours euh, ba doo eh, mujj même si hôpital doo mujj sax man fay sama téléphone dootuma wuyu moo wooree parce que xawoon na ma mais li ma ci gënoon a metti nag mooy euh, sama doom bu jigéen dem école sentir boppam di métti mënut a jàng ñu bàyyi ko bu ñibbisi xale bi jigéen bi ko doon gunge sax tey moom tamit bari ci démb la génn moom mm, contacté woon na ko léegi nag euh, élèves yi doon woote di jooy di laaj naan ndax euh, Bintamar dal na ko dalu ko dalu ko sama doom la Bintamar léegi euh, loolu nag bi ñu ko waxee moo xam ne élèves yooyu tey imagine tey élèves yooyu bu ñu amee jàngoro bi ñoom ñëpp jële ko ci Bintamar baax baax euh, par rapport ak euh, ndimbal li nga xamee ne wax nañ ne également egsi na ci ci ci ci yow ak ci sa njaboot par rapport ak euh, faj bi ngeen doon faj jàngoro ji lan nga ñu ci mën a lan nga ñu ci mën a dolli. ndimbal moom ñu ngi koy dégg comme ni ko nit ñi di déggee waaye yàlla dogal na gisaguñu ko. gisaguñu ko nag mais nag ñu ngi koy dégg parce que gis naa ci journaux yi dégg naa ci rajo yi wax ba ne euh, Serigne Mountakha euh, jox na Modou Modou bi tonu ceeb ak ñeent fukki ak ñeent fukki junni ah loolu duma ko wet ndax Serigne Mountakha lu ñu la jógee ci moom moom gëm naa ko gëm naa ko lool ah mais euh, xëy na mi ngi si yoon egseegul